Alors pour une troisième finale, peut-être la belle entre deux équipes qui se connaissent déjà, une qui joue, l'autre qui ne joue pas du tout. on sait que l'Argentine hier, c'était 120 minutes de non-jeu pour un match nul. <laughs> voilà, très qui est très content, Papa Abdoulaïder, alors quelle demi-finale innommable Oui, on n'a rien vu, franchement, absolument rien. D'ailleurs, les euh, les Pays-Bas ont fait un tir cadré dans les prolongations. 90 minutes durant, aucun tir cadré pour la Hollande. C'est dire que ces messieurs de l'Argentine avaient bien verrouillé. Et le résultat 0-0, absolument rien à se mettre sous la dent. Et puis la qui finalement qualifie. dire que c'est la première fois dans des demi-finales de Coupe du Monde qu'il y a oh, en est là à et Allemands pour nous avoir mis 8 buts la veille. Est-ce que ce sont les Allemands aussi? Est-ce que les Allemands n'ont pas marqué tous les buts qu'il aurait dû avoir dans ces demi-finale de Coupe du Monde, c'est hier qu'on l'a vu. ce qu'on a vu euh, dans ce match <laughs> Brésil euh, Brésil euh, Brésil Allemagne Charles désolé mais c'est c'est pas une demi-finale. c'est euh, pas du football. chers téléspectateurs di leen wax rek supporters yi ñëw ñu rek seen kër ñu ngi tam fii ci kaw plateau bi fenn tey euh, avec Cheikh Tidiane Diaw bi ñu xamante ne Argentin mais Argentine ci boo leen wootee si numéro boo xamante ne yaa ngi ci si suuf seen écran xëy na moom der dina génnee tey ay. waaw waaw ma dañuy defal hollandais ñibbi nañ entre guillemets y a la petite finale alors euh, dinañ euh, dinañ maye euh, diggante tey ak suba ñuy woote bokk. ci émission bi yéen woon naa ko Cheikh Sadibou Diarra moom nee na bàyyi na seetaan mais Cheikh Sadibou Diarra bu wootee mën na am <laughs> chance bokk ci ñi koy gañee voilà justement alors il y a le maillot aussi de l'Allemagne exactement maillot argentin voilà justement boobu mun ngeen woote si numéro boo xamante yaa ngeen ko gis fii seen suufu écran alors justement pour en revenir un peu au sommaire l'Argentine et l'Allemagne des retrouvailles pour la belle cette fois oui, alors juste peut-être avant ñu jël kenn déjà am na ku nekk ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum maaleykum salaam Abdoulaye waaw sëñ bi fooy wootee ak tur bi Mbacke Bawol di la maanaam Mamadou Fallou Mamadou Fallou na nga def sant ba alhamdulilah. ngi ziar waa Mbacke Bawol yëpp. ñu ngi doon ziar baax alhamdulilah. Euh, ñu ngay bisimila ci waxtaan wi affiche finale bi siiw na Allemagne euh, Allemagne euh, ak kii Argentine. Ah, ku la éliminé moo koy jël. foo farati woon fàttali ma ko. Ah, ah, kon kon yow kon yóbbu sil xafaar nga foon ni daal mooy. mooy ñu beeg coupe bi. damaa bëgg mu dóor gars yi comme ni mu doon bëri ay sept yooyu mu doon ñaari trois bu ko defee ñu xam ne man jàmbaar laa ko am man la ma doon. mais mais nag euh, euh, sëñ bi xam nga man lan laay xalaat match bu nekk coupe du monde bi bi mu dooree ba léegi maa ngi koy wax Cheikh Tidiane démb mi ngi koy fàttali match bu nekk ak vérité boo xoolee ni démb dëgëroon na diggante ñaari équipe yee yomboon na ci Allemagne mun nga juum. non du loolu xam nga bu ñu waxee bu ñu xoolee rek bi affaire yi commencé ba léegi. Mhm. li fi Allemagne wane kenn wane lu ko. waaw ci palaat bi ak palaat bi ci lépp kon bu ñu ma nekkul mel kenn ma nekk ko su ko jiwu dinaa moom bokk na ci équipe yi njëkk a fële palaat euh, euh, Brésil pour waajal affaire yi. dëgg la mais mais xam na man tamit lu ma gis. Argentine mi footballul de dafa wuuree. waaw gis naa ni muy def moom. voilà dañuy wuuree. am am na équipe bu dëgër mais ba tey équipe boobu équipe boobu ñu indi li war na ko ba ba tey football bu ko ko wax te na looloo xam-xam am na équipe bu baax. ah jërëjëf mais am du ñoom. final la de final benn match lu ne mën na ci xaj. parce que damaa indi sama xale yi damaa indi sama xale yu am doole ñu gañ leen lañ ko am muy France. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. loolu ñu waa Mbacke yëpp <laughs> mais justement justement alors bu ñu xoolee quand on regarde ñaari euh, ñaari demi-finale yi ñu xoolee tam finaliste yu ñëw ça sera dimanche à partir de 19h GMT je pense que au stade Maracanã justement alors quand on regarde deux oppositions c'est une position de style extraordinaire entre deux footballs l'un joueur mais l'autre pas euh, des des des Argentins. Oui, bon, bon, bon, je pense que cette équipe d'Argentine, euh, ils ont très tôt su leurs limites euh, euh, dans ce match et ils ont travaillé sur leurs points forts. ñu ñu jël kenn rek. ñu jël keneen ki ci ligne bi allo salaamaaleykum. waaw sëñ euh, Cheikh Tidiane. waaw. <laughs> maa lay ziar na nga def. Eh, ñi delloo ziar. waaw. yàlla waaw mais nag léegi li Abdoulaye wax d'accord naa si ah Argentine dañuy wuure. dañuy wuure. dañuy wëree vraiment dañuy wëree bon la demi-finale c'était hier avant qu'il y ait pas de demi-finale je suis d'accord avec toi. waaw loolu loolu laa wax. dëgg la waaye mais mais li ma li ah, <laughs> ma bëggoon laaj si lu ko naqari ci Espagne. Espagne. lu lu ko ci naqari. ah Espagne de wax dëgg fa yàlla man ay joueurs yu ma bëgg rek ñoom fa nekk de waaye xam nga rek ñoom dañoo teel a ñibbi. yow mais kañ nga toxu. non toxu nee na kañ nga toxu. non man nag Espagne eh, sympathisant Espagne la mais. ñoom laa faral de. waaw xaaral ma xaaral ma wëllu ko foofu mais mais yaa ngi ne sànq yaa ngi ne sànq de dañuy. wure dañuy tricoter l'Argentine une équipe ce que c'est surprenant ça quand on bu ñu xoolee Argentine lu mu am est-ce qu'on n'est pas surpris de ce football là. xam nga xam nga benn problème moo ci nekk pour ah. pour Argentine. Ah ah. xam nañ ne attaque bi Messi du jàll parce que Messi dañ ko préparé. léegi défense bi dañ ko dañ ko dafa rek défense regroupé boo alors que mun nañu déstabiliser toutes les attaques ak fu mu mën a jógee. te bu fekkee Allemagne. du yomb ci moom. non dëgg la. waaw mais est-ce que c'est pas étonnant bu ñu xool waaw mais l'Argentine c'est il y a aussi des c'est pas de bons joueurs qui manquent ils ont même au-delà de bons joueurs. oui oui Agüero i. seen automatisme yi la. ak fighting match bi. waaw ils ont eu peu de match les joueurs ont eu peu de match à la jambe. Mhm. oui. il verra que l'organisation défensive. Argentine. Uh -huh. et d'abord le regroupement des milieux de terrain. Mhm. même bu ñu lancé wu. ça ne ressemble pas au catenaccio italien. exactement. italien exactement mais. Mhm. à la seule différence. oui. italien ils sont plus offensifs et ils exploitent tous les les plans. oui la nouvelle Italie est mhm. offensive. bien que ça ne lui réussisse pas d'ailleurs. et ensuite ils jouent beaucoup sur les plans. c'est vrai. merci devant la balle, entre la de terrain, uh -huh. on puisse tendance à parachuter les balles oui. au niveau de Messi. Uh -huh. qui, qui, alors du mën a sa jot benn balle du ko mën a jot m exactement merci merci beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup des analyses très très très exactement non pour dire que je suis d'accord am na keneen am na keneen am na mais vraiment li mu wax euh, noonu la allo salaamaaleykum euh, kilifa gi fooy wootee ak tur bi. waaw man maa ngi wootee côté Touba. Euh, tur bi naka la. waaw est naa ko lekk. waaw lekk ko amul benn problème lebal nañ la ko. bu heure ndogu jotee nga fay ñu ko. <laughs> ay ca bisimilah yow la ñuy déglu. waaw léegi nag ma rafetloo jotaay bi man vraiment damay naan ci match bi bi quoi xam nga ñëpp dañoo jox favori yi nii Allemagne dafa war a gagné Argentine. Eh, uh-huh. ci ci match bi mais attention parce que Argentine démb bi ba mu avant mu ñëw boo xoolee ñu bëree wax dañ naan kii mooy gagné. Hollande euh, Hollande waaw mooy gagné. Mm-hmm. li nga wax ni dëgg la. Mm-hmm. Argentine dafa yor. Mhm. maanaam mat ak yëpp noonu quoi. te en même temps xool boo xoolee tabla tabla mat bi. Mhm. benn mille la am kee waaw. waaw booy xool Allemagne daf koo pour dugg la rek mais Assane am na taxawaay bu baax xëy na doo ko mais tamit doo ko gaaw a mhm. loo ci xamul euh, Argentine euh, seetlu naa ne ñaari matcham yu mujj yëpp adversaire bi mu dajeel benn occasion nga am ci match bi muy Belgique ak. Euh, Pays-Bas démb ku ci nekk benn occasion la concédé. waaw. waaw mais est-ce que euh, football bu gis Argentine est-ce que ce n'est pas le football le plus simple qui consiste à avoir mooy nga ñëw nga taxaw say nga am latéraux yu dul dépassé ligne rek moo fa dépassé am deux milieux défensifs yu dul dépassé am la chance d'avoir un Messi et puis après le reste relève du miracle est que le football c'est ça c'est ça si ce n'est que ça le football autant rester à la maison et regarder à la télé naturellement sur TFM. xam nga xam nga bi boo gisee mu fubale noonu démb mais boo xool benn leader la muy muy muy Messi daal moo fa doon doxalee bi. mais Messi démb sax dañ ko tëj tëj yu metti sax gisul. gisul waay dañ ko tëj xëy na démb daal bu fa nekkoon démb. ci mhm. ah, boo xool ah, Pays-Bas ci premier dem temps réglementaire boo pour ñu gagner. Mhm. malheureusement Dimiria football. waaw sooy xool Dimiria. loo gisee match bi kuy gagné. match bi. ah. du yomb rek mais laa jox laa laa yaakaar ne mooy gagné. Ah. merci jërëjëf. waaw bu ko bëggee gagné nag moom xëy na ay bal arrêté lay doon genre coup franc wala. waaw moom. merci ñu lay remercier rek lijjanti na fi ay match voilà ñu lay remercier rek certainement Argentine série penalty am na keneen ku nekk si ligne bi. te ñu jël ki ci topp mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa ngi en direct TFM. tur beeg fooy wootee. Euh, Babacar Diop maa ngi wootee Parcelles Assainies. Babacar Diop Parcelles Assainies ci waxtaan bi. waaw di leen jaajëfal rek parce que démb moom sama dëgg dafa yàqu ah. Hmm. sa sa. c'est-à-dire euh, man ñaari étudiants ma saa mooy Hollande ak Milan AC. Ah, waaw depuis avant politique de Milan euh, Rijkaard ni ñëpp si Milan hmm. et puis boobu laa ngi supporté ba léegi hmm. mais malheureusement démb moom ah doxul doxul. kii est euh, <laughs> <laughs> oh, dafa mel ni Babacar. Babacar moo bokk équipe ak Cheikh Sadibou Diarra fii ci kër gi la nekk. jërëjëf jërëjëf Babacar je vais je vais peut-être prendre am na benn. ñu jëlaat keneen voilà allo. allo mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum. allo. oui. waaw sox euh, soxna si na def. maa fooy wootee ak tur bi. maa waaw tur bi naka la. Oulimata. Oulimata. waaw koo faral ci final bi Allemagne euh, Argentine. Argentine. Ah, kon pour yow daal yéenay gagné. oui dañuy. ah oui. Ah, duñu seen morom. <laughs> mais comment vous allez faire xanaa dangeen ngeen di toog comme d'habitude si gannaaw ne pas attaquer xaar série penalty yi après dem. ñun <laughs> dafa bu hmm. leen agent hmm. kon ñu joxante rendez joxante rendez-vous loolu gërëm di la sant doon wootee ba Mbour waay. Ah, ah, euh, alors justement il paraît que là encore quel autre c'est marathon. très bien on aime bien ce marathon nañ jël kii am. ñu jël kii ci ligne bi allo salaamaaleykum allo. allo. waaw sa mbokk mi yaa ngi en direct TFM. oui. tur bi fooy wootee ak euh, fooy woote waa tour bi. maa ngi wootee Pikine tudd Jean Paul. Jean Paul di woote Pikine. waaw. waaw ñu ngi lay nuyu di ziar waa Pikine yëpp Allemagne Argentine kan moo ci sa équipe. Euh, kenn ci sama équipe mais Allemagne laa jox favori quoi. Ah, lu tax. parce que bon football moo moo ma gën quoi. football moo la doy mais lii ñi euh, am na ñaan yu génn fàttali nañ ko Argentine mii day yàq jeu de li Charles wax dañuy aligner défense bu dëgër milieu bu dëgër ci kanam ñu ne ñu ne ñu ne yaa Messi yaa Messi moom lu ñu am jël ak moom. waaw waaw kooku bon xam naa ne ñoom fële seen limite mooy seen limite amoon nañu beneen pexe. Mhm. parce que vraiment bon niveau technique ils sont pauvres mais bon enfin. ça veut euh, euh, dégg nga Allemagne mooy sama favori. mais ça veut pas dire qu'il va gagner. ah bien sûr donc de dee ñële mën exactement merci. Merci, merci Jean-Paul, merci Jean-Paul. Jean on essaie d'être le plus large possible merci. pour prendre tous ces téléspectateurs qui appellent si nous avons quelqu'un d'autre d'être. Allô mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, kilifa gi yaa ngi en direct TFM tur beeg fooy wootee. waa Xaadim. waaw. Xaadim. waaw.

Mhm. parce que ñoom na banque maanaam. waaw ah. c' mhm. merci mais en résumé il concède que l'Allemagne am nañ attaque bu baax mais aussi euh, défense Argentine bi mën na leen dégg mu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum waaw ah, maaleykum bi fooy wootee tuur bi maa ngi bi naka la ah Saliou Seye Saliou yow yaa dellu si kerook euh, jotoo fi bàyyi sa numéro bi yoon bu ko fi fàtte bàyyi ñu mën la woo. waaw man ngeen kaa jël waa waa léegi balaa ngay génn wala xaw ma ndax balaa ngay dugg nii bàyyi nga sa numéro ci régi bi waaw mais Allemagne Argentine kan moo ci sa équipe. man de sama équipe toog na démb moom mooy Pays-Bas. daa daa massa <laughs> massa. waxoon naa la ko de. <laughs> allo Saliou allo Saliou day déglu télé bi. allo waaw. waaw Saliou day déglu téléphone bi. waaw ñu déglunte ci téléphone bi Massawaay mais lan moo doxul dem sa équipe pays ba nga ñibbi. Pays-Bas xam nga lu tax. waaw. man kay moom bin bin bin Saliou góol bi kay lan moo doxul Robben Robben lan moo tax lijjantiwu ko comme ni mu ko doon defee. Robben tamit doxul ak Van Persie. waaw mais. waaw mais Saliou Saliou ah. xam nañ ni xam nañ ni ndeysaan am nga lu la lu la metti mais c'est normal aussi argentin yi espace yi ñeneen ñi doon bàyyil ñoom Van Persie ñoom Robben mais moom la argentin yi bàyyiwul c'est c'est aussi simple que ça dañu dañ leen tëj Saliou jërëjëf jërëjëf nga nuyu ñu waa bàyyi sa numéro ci régie bi ñu mën la woo voilà nous ñuy remercier vraiment ça se bouscule terriblement bon mais c'est ça nous sommes là pour ça aussi ñu jël ñu jël kenn ak teg ci ligne bi allo mbokk mi salaamaaleykum fooy wotee ak tur bi fan. Caaroy. Ah, tur bi naka la. Ah, Mor. Eh, tur bi naka la nga ni. Mor Diouf. waaw kii séeréer la dafa wóor ba léegi moo tax mënuñu dégg bu baax li muy wax. ah déedéet Mor Diouf. waaw waaw Mor Diouf non dégg nañ tur bi dama lay tooñ. Ah, bismillah Allemagne almaañ Argentine kan nga ci faral. maa ngi ci Argentine. ah. kon jàpp ngeen ni yéenay gagné. foo ko teg. Eh? foo ko teg. non fu ma ko teg. laaju foo ko teg. <laughs> ah non football laa ko ci football nag ñu waxante dëgg. Mor yéen football leen fi dara. Ah, ah, Mor yéen yéen kay yéen kay ah. il est vrai di ngeen daw derrière un ballon am ko ku nga manipuler mais pour le reste vous êtes des. da ngeen di taxaw rek. non taxaw taxaw taxaw boobu ci football la bokk ne ko taxaw boobu ci football la bokk am na ñu ko mënul. Anta li a Morgan, la négation du football fenn demb ça veut dire 120 minutes de jeu avec une balle de part et d'autre pour <laughs> c'est ouais. c'est vraiment cher payé quoi. wala ah yow nag moytul Allemagne de Allemagne est-ce que ah. xëj na si yow. ah ah moom mooy ah, Allemagne ah. sud africain sud américain bu mu tëyee da lay door de. ah ñuy làkk portugais espagnol ñëpp la bañ de ku fi ñëw mu door la moom. kii kii même français di door. non bii day ñàkk Allemagne yaakaaroo jël fa benn 3-0 ñibbi. non laa il xam nga ko. <laughs> waaw. jërëjëf. ñu waa Caaro yëpp. ñu ngi leen di gërëm di jël keneen ki ci ligne bi allo mbokk mi salaamaaleykum. allo Albert. waaw sëñ bi yaa ngi en direct TFM. allo allo waaw waaw waaw. allo. nañ dégloonte si téléphone bi waaw ñu dégloonte ci téléphone bi mbokk mi. waaw nu wàññi télé bi mu wàññi ah, boo wàññee télé bi parce que ba fii ñun ñu ngi koy dégg maa lay dégg waaw waaw sëñ bi fooy wootee hmm, Touba Bala Diaw euh, euh, tur bi naka la nga ni Bala Diaw Touba waaw waaw ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di la ziar Allemagne Argentine foo féete yow waaw man de kenn ci sama équipe mais Allemagne laa supporté lu tax moom laa bëgg mu dóore euh, xanaa Argentine dañ la gaañ Argentine <laughs> non Allemagne ma gaañ la tax mais dafa am. non yow yow xam naa la nand la yow anti Messi nga xam naa foo far. wax dëgg yàlla. allo voilà. yow Portugal nga yow. yow waa Portugal nga yow. bu uh-huh. am lu mu waxoon. waaw. te mel ne daal lu ngi ci Uh-huh. moo tax daal man may ñaan Allemagne dóor ak Espoir bu baax a baax. fàttali ñu lu mu waxoon bi mu ñëwee Sénégal ba ne ci yoon ah, boobu. waaw daf ni woon moom carrière am li ko ci dese mooy dafa bëgg a. coupe du monde ko ci dese woon. Ah, mais mais mais yaa ngi fi door a wax loo xamante man fàtte naa kon Messi ñëw na fi Sénégal. wax nga dëgg waaw Messi ñëw na Sénégal ah ñëw na Sénégal ba pare gis koo xamante kooku dañ ko woon 1998 pour français yi. la ila yow kay affaire yi leer de tañ kay Sénégal joxe na coupe du monde bi. alhamdulilah. déet yow ba ngay wax la nand bu. gaaw a gaaw te Baara Diaw non Charles li mu junj dafa garaaw sax. nee na nee na Messi ñaan la fi ut si woon. ñaan la fi nga loo xam ni. waaw dem na te jël keneen rek. Baara Diaw ñu koy gërëm euh, allo mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, fooy wootee ak tur bi. tur bi naka la sëñ bi. Cheikh Lo. Cheikh Lo. waaw. Argentine kan nga faral. man Allemagne laa faral. Allemagne ah. waaw waaw lu ko waral. Allemagne jàpp naa ne mooy gagné parce que moom bi tournoi bi commencé ba léegi moom. mais moom laa seetlu na ma équipe bi gën a taxaw ci ci mondial bi. waaw mais Cheikh Lo. waaw Cheikh Cheikh ragaloo ñaanu Messi Messi dafa ñëw Sénégal ut si ay ñaan ragaloo lool parce bu ñu gisee seen football doy na waar c'est vrai que l'autre a attiré attention bala mais Messi moom ndekete ay ñaan la fi ut si woon. no Messi Messi moom gëmul mu la gëmul mu laa jëriñ Messi ñaar yooyu du ko jëriñ dara. Messi de joxe ay moustiquaire moo ko andi <laughs> officiellement loolu laa doon pare. officiellement officiellement xeex xeex si bureau ko fi indi woon. <laughs> boo moytul set un yooyu sax léegi am na explication début d' explication. dama ni est ce que lijjantiwuñu bi yu waroon dugg yëpp dugal nañ ko jour boobu. merci merci Cheikh Lo. merci jërëjëf et di vraiment tous ces téléspectateurs yi depuis le début du mondial je pense à se poursuivre jusqu'à la fin de cette coupe du monde alors justement Argentine qui joue contre l'Allemagne mais n'oublions pas que bon nombre d'Argentins sont aussi des Allemands est-ce que c'est pas pour ça qu'il a des similitudes dans ce football ne serait-ce que si discipliné on peut tout dire des Argentins Exactement. mais c'est l'un des footballs les plus disciplinés de ce mondial il faut reconnaître ça c'est l'équipe la plus européenne des sud-américains. La, la plus allemande et italienne aussi. Quand on regarde bien, euh, issue de la Deuxième Guerre mondiale, <laughs> peut-être qu'on a une explication de ce football-là. et c'est même un pays de, l'Amérique latine, mais on ne trouve aucun noir dans, dans l'équipe. C'est pour conforter ce que vous dites, que c'est la plus européenne en fait de ces, de, de ces équipes euh, euh, sud-américaines. Mais, mais, mais Charles Ninko man, quoi qu'on puisse dire, ni euh, Cheikh wax na ko ci football bi la bokk boobu la tànn xeetu taxawaay boobu xeetu wure boobu football la moo leen indi final mën na neex nit ñi mën na leen bañ a neex mais bon ñoom tactiquement loolu la ñu c'est le tiki en football chatoyant en football champagne qui la coupe du monde tout le monde a applaudi quatre ans plus tard pour le spectacle on aurait souhaité mais il y a quand même deux choses qui se reflètent euh, chez ces deux équipes c'est vrai que l'une est joueuse l'autre est attentiste mais toutes les deux sont sacrément réalistes quoi mm. c'est oui. c'est peut-être ça qui est la grande et, et paradoxal de... aussi pour euh, une pierre dans le jardin de mais c'est paradoxal aussi pour l'Argentine de Léo Messi quand même Non, mais l'Argentine de Léo Messi, attends, mais je sais pas si vous avez suivi euh, les éliminatoires de cette équipe mm-hmm. argentine, mais, mais elle jouait de la même façon. Cette équipe, depuis euh, n'a jamais eu de fond de jeu. Euh, c'est un assemblage de stars. Et après, c'est Messi qui fait la il différence. A trouver Et en plus, plan offensif est très diminuée. Mm. Des fois, n'a jamais eu en même temps Messi, une seule fois, je pense, un, un, un, une seule froid et, et, et il n'était oui. pas très en forme. Ouais. Et Higuain a démarré, euh, je sais pas la compétition sur le banc de touche, mais quand même, bon, bon je pense que ah je, je, je pense que déjà qu'ils ont Messi cramé physiquement, il n'y est pas. Il essaie de compenser tout juste alors, avec alors, sa, science, sa technique. On sait qu'on va vers la belle. Maintenant, on connaît le football avancé que les Argentins attendent et exploitent la, même, la moindre défaillance. Mais par contre, les Allemands quoi qu'il en soit, vont jouer, c'est les favoris de, de, de ces... Est-ce que ce n'est pas le piège finalement pour l'Allemagne mais, mais, exactement, c'est le piège et je pense que l'entraîneur Joachim Lowe a assez d'expérience, assez de science entre guillemets pour, euh, pour, pour éviter ce piège-là. Mais on verra avec la réalité euh, de cette finale et comme on le rappelle si souvent ici, chaque match a sa vérité dans cette Coupe du Monde. Et Alors, en plus, euh, cette équipe argentine, euh, d'ailleurs, hier, je pense que tu, tu me l'as dit, hier, cette équipe, même si elle joue mal, elle a des joueurs capable de marquer à Effectivement. Tout moment. Alors, ah mais elle joue ah, merveilleusement mal, c'est ce qu'il faut dire de cette équipe qui refuse de jouer, mais qui, qui merveilleusement non, Charles, équipe, arrive à... Une équipe, Charles, Charles, Charles une équipe qui joue mal prend cette Non, je dis merveilleusement mal, ouais. je veux dire le football, je veux dire, je ne pas dire qu'elle joue mal. C'est bon. qui a mal non, joué non, après arrête, arrête avec ce qui est arrivé au Brésil, c'est tout à fait autre chose, sans justement, justement, on a la transition. Le Brésil, alors le Brésil, toujours du mal à se relever de ce Je pense que ça va prendre des décennies parce qu'on c'est pas du jour au lendemain. Ça, sont, tellement froids qu'ils ont envoyé un mail à la fédération brésilienne pour leur dire que oui, c'est pas grave, la même chose en 2006. On nous a pris notre mondial en Allemagne même. Je pense que c'était l'Italie qui avait éliminé. il y a quand même. Deux... pas de la même façon. mais bon, y a quand même 200 millions de, de, de Brésiliens, 86 millions d'Allemands, on c'est-à-dire c'est un cataclysme ça oui, va aller du côté Charles, de... Eh, eh, Charles est-ce qu'ils peuvent se remettre c'est pour le match contre oui, c'est ce que je suis en train de dire euh, c'est c'est franchement mais, mais après pourquoi, une pareille mais, pourquoi pas pourquoi pas parce que là je pense que euh, ces joueurs qui ont joué euh, euh contre l'Allemagne c'est des professionnels ils ont l'occasion de démontrer à la face du monde que ce qui est arrivé il y a trois jours plus tôt que c'est un accident le parcours s'ils font bon mais résultat, ils peuvent aussi prendre encore une raclée hein, c'est possible mais, hein. c'est ce qu'il faut éviter justement il faut tout faire pour ne pas prendre, avec, avec euh, un rebelle motivé qui est toujours en course pour le titre de meilleur joueur euh, cher avec ce que cela. c'est en perspective une autre je crains encore pour ce Brésil une déception. mais il y a Robben mais euh, en face de Robben il y aura Thiago Alors ça que le retour il y aura le retour de Thiago Silva, il sera dans l'axe avec euh, David Luiz. Et puis dans bon. quel état psychologique ils seront mais, le public bon, également. Et heureusement, ce sont des professionnels. Ils heureusement se que cela se passe à Brasilia, c'est pas encore le Maracana. Merci, ce, ce sera dimanche le, euh, merci, merci cher Tidane Diao, merci Der. Ce sera dimanche pour la petite finale. Quant à nous, on se dit à demain pour notre débriefing. Bonsoir.